Euh, ñëwoon na fi mais pour les mêmes circonstances sama papa nag daa amoon lu mu faral doon wax sa waxu démb wala sa jëfu démb dafa war ak euh, sa waxu tey ak sa jëfu tey je pense que dañuy sant bu baax a baax ndaxte Walfadjri yi xëy na difficile la ñes de doo mu ragaloon mu am yeneen tournure mais suñu constance je pense que ñoo ngi koy wane ba léegi wax naa wax wax naa ko président Macky Sall ne ko ñun contre nous pouvoir faalu nu opposition on est avec le peuple ni ko si lan nges doon waxee rek contre pouvoir ne pas dire forcément contre le pouvoir donc la voix des sans voix boobu noonu doon tànn comme suñu ligne rédactionnelle man bi ma ñëwee bees sama mission c'était recomposer la famille Walfadjri ñëpp ñi fi ancien Walfadjri ak ñi fi nekk ñëpp nga xam ne c'est vraiment des gens qui ont travaillé qui ont collaboré avec Sidy Lamine Niasse ba tax na du may def lu ay AG réunion parce que xam naa ne ñëpp on a eu la formation et l'école Sidy Lamine Niass donc tey mun naa ne daanaka quatre-vingt-dix pour cent wala du personnel de Walfadjri liggéey nañ jëflante nañ ak Sidy Lamine des responsables muy Moustapha ñoom Oustaz Assane Diop des responsables à commencer chef de desk ba ci kaw le directeur euh, am nañ fi bon bon à quinze ans d'ancienneté donc pour vous dire que c' est pas tey benn personnel bu Cheikh Niass équipe bu Cheikh Niass moo ñëw di def lu ko neexoon ak kii ñun ça c' est Walf si Lamine Niass fi nekkoon tamit euh, li li am nii doon na am d' ailleurs Mbacke euh, reporter bi ko couvrir mooy fa depuis xaw ma ñaata at depuis une dizaine d' années on le connaît donc y' a pas c' est pas tey nous ne sommes pas le perdreau de l' année maanaam ay jeunes yu ñëw nii euh, xamuñu liggéey bi donc li ñu def yëpp. on le fait avec déontologie et avec expérience. semaine bi passée euh, waa Benno ils ont payé pour couvrir leen seen euh, activité parce que une fois on est une entreprise commerciale de droit sénégalais chaque fin du mois ñoom Moussa ñoom ñëpp ñu ngi donc euh, c'est tout à fait normal tey muy état muy feneen proposer euh, un montant ñu liggéey ak ñoom proposer waa Pastef ne pare pour ñu. Euh, couvrir seen événement bi on s'est dit il y a aucun problème donc euh, Babacar Diagne bi mu ma wooyee ne ma euh, arrêté le signal bi je lui ai dit lii c'est commercial mu ne ma si tu coupes pas je coupe ma ne ko jëlee sa responsabilité parce que man damay liggéey je ne peux pas couper te lii nii pour man c'est une information y a deux choses hein y a l'information et y a la communication la communication elle est payante mais soo demee ba ñun on était derrière les policiers donc euh, joxuñu xale yi euh, animat joxuñu leen pneu on n'a rien fait on vient on constate mal j'ai fait vingt ans en France BFM TV daanaka loolu kese laa doon seetaan attentat Charlie bi ñu doon def assaut euh, hyper caché la yëpp journalistes yi venaient en direct ñuy wane alors que amul lu gën a dangereux waaw donc euh, récemment avec Gilets jaunes yi Russie donc pour vous dire que tey actuellement avec la concurrence médiatique soo soo télévision yi mënul tudd defati la politique de l'autruche parce que y a la presse en ligne tey daanaka marqué soo demee si presse en ligne tu tu avais tout toutes les images. Mhm. même la presse traditionnelle sax amoon na ñu ko doon wane te dafa mel ni Walfadjri rek la ñuy euh, la ñuy euh, discriminer parce que en réalité c'est ça c'est Walfadjri qui se dérange donc euh, en tout cas vraiment di leen remercier bu baax a baax te di leen wax ne ñun on va continuer suñu suñu liggéey. une semaine nag c' est une volonté d' asphyxie d' asphyxie financière parce que mois de février damay ne patron de presse amul benn patron bu bu mois de février parce que 28 jours moom janvier moom neexoon na trop janvier moom tu sens vraiment que tu as le temps de recouvrer et tout mais mois de février moom man chaque jour maa ngi xool ban date la parce que maa ngi ne voilà ñu gën a kii yaay donc waaw donc vraiment euh, 7 jours c' est trop mais dañuy sentir yàlla xam ne que lii c' est le prix à payer. Mais on va continuer notre travail et on est prêt à travailler avec tout le monde. On est des Sénégalais fini, c'est pas une famille euh, Sidy Lamine Niass ñoo fi nekk wala daayira wala leneen loolu waxoon naa ko sax président de la République mooy ko kii ni directeur de la radio euh, et de la télé Diop la sant kii Diouf kii euh, Faye et ainsi de suite donc c'est des Sénégalais dox daje na donc c'est ça aujourd'hui c'est une entreprise sénégalaise donc suñu të suñu tëjee tamit c'est deux cents pères de famille qu'on met au chômage donc encore une fois rek président di la sant bu baax a baax te di leen wax ne que ñun on est là pour travailler avec tout le monde avec tous les Sénégalais te wax dëgg fa yàlla on est vraiment sensible à cet acte ñëw fii nii bàyyi sa yitte bàyyi sa lépp te ñëw soutenir ñu on est vraiment sensible et on vous remercie jërëjëf. merci merci le président directeur général du groupe Euh, moo doon yëkkati ay kàddu noonu di wax jëmale ko ci li nga xam ne rek moom la muy visite boo xam ne njiital Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoom laa nag sànq maa ngi koy lim sax ci délégation bi Babacar Ndiaye lañ ci sote woon euh, Abbas Fall Marie Rose Faye Ousseynou Ly ak euh, Djibi Djibril Gueye Ndiaye mu ànd ak ñoom ngir masawu si ñi nga xam ne ñoo di waa Walfadjri yi nga seen ay signal ci TNT canal bi waa kon bu fekkente ni donc mën nañ koo jox. bëggoon naa wax benn élément rek pour vous dire que inutilité de signal. parce que président wax na ko sànq. digital bi aujourd'hui euh, daanaka Sénégalais yi bëgguñu injustice. tey en même pas 24 heures li ñu si abonné mosuñu ko am si un mois wala deux mois si euh, digital bi. donc on a fait plus de 35 000 statut léegi si WhatsApp plus de 35 en même pas. Euh, quinze heures de temps te loolu on l'a pas en un mois le nombre d'audiences tamit on a fait deux millions cinq cent en même pas vingt quatre heures alors que loolu noonu c'est une semaine wala deux semaines qu'on le fait donc les Sénégalais massivement tey ñoo ngi euh, si euh, si YouTube bi di ñu seetaan donc vraiment di remercier bu baax a baax les Sénégalais n'aiment pas l'injustice donc lii au contraire ñoom dañu jàpp ne que dañuy néewal doole mais au contraire ça nous que YouTube dañuy fay donc ñoo ngi sant bu baax les sénégalais te di leen wax ne continuer le combat ñu continuer di abonné parce que un million d' abonnés yi tamit je pense que c' mais cinq millions comme ni ko président waxee tamit <laughs> moom mooy gën a